alors les amis ba léegi ñoo ci saison 7 épisode 12 ànd ci ak suñu lion yi maanaam les lions de la tech du Sénégal man ay lion lañ wooyee ay gayna njaay lañu alors euh, bi nag moo nekk deuxième partie bi première partie bi jàll na waxtaan nañ ci seen jaar-jaar ak lan moo leen dugal ci informatique bi ak euh, série scientifique yi euh, léegi nag dañuy dem ci beneen partie bi nga xamante ni moom la ñu jagleen solution yi ak problème yi nga xamante ni moom la jigéen ñi di rencontrer ci métier bi ak yan yan solution lañ ci mën a lañ ci mën a teg pour que loolu dañ naka la ngeen mën a ñaaxee ba nga xamante ni dañuy gëm seen bopp xam ne lépp lu góor mën jigéen mën na ko amatul benn frein ci loolu la ñu war a waxtaan ci deuxième partie bi ànd ci ak Fatoumata Caroline Ndiaye euh, Anta Dieye Thiaba Diop ak Franceline Daba jonn ay ca ñu dem et Fatoumata je ne sais pas est-ce que di nga mën di nga joxe question c'est-à-dire euh, euh, da ngay dem ci lycée tu vois ak wala ci école gendarmerie da ngay gis ne série série scientifique yi euh, jigéen ñi duñ fay nekk lu bëri du comme nous, nga ko waxee déjà tu vois mais tamit est-ce que ñàkk a ci série scientifique yi à l'école ci collège ou au lycée. Mhm. mën na la tere nga def ay études supérieures en informatique wala sax dans l'avenir nga nekk entrepreneur ci xarala de bees

je pense que bu ñu amee sensibilisation mhm. boobu am ay orientation dinañ xam bu ëllëgee lan lañ mhm. war a def man sama genre mhm. bi man matière euh, kii rek littéraire rek mat dama daan tëdd stable. bi teewut am naa ci sama bac parce que lan dama doon wax ni mën naa ko te dama koy def man bi may def bac S sax j'étais la présidente du euh, club anglais kon xam nga ne man <laughs> damaa të rek <laughs> oui c'est sûr. lépp lu am. <laughs> Ah oui lu am rek da am lu tax. Mm. oui ça c'est bon. lu am dafa am lu tax sama prof PC dafa daan dem di ma boole directeur bi parce que damay def cours wa club anglais bi wo ma ma fa cours ba dem. di dem di représenter école bi ci yenen club anglais. kon lo lo am <laughs> da am lu tax. Mm, je pense que bu ñu amee sensibilisation bi. élèves yi dinañ xam parce que ñun jigéen teg demoon nañ benn école géej waaye di former di di di def ay kii euh, formation xale yi euh, ku ci laaj lan loo bëgg a nekk dala naan infirmière sage-femme enseignante parce que loolu lañ xam loolu lañ gis. Hmm. donc kon am nañ liggéey nag am nañ liggéey bu rëy de. voilà loolu lañ xam loolu lañ gis. am nañ liggéey man mii hmm. dem naa ba am bac loo bëgg a def xaw ma loo bëgg a def xaw ma. Ah. oui alors loolu am solo la parce que des fois bëri na ñoo xamante ni euh, dañ lay euh, poser ay questions ci ay ay ay ay débouché ak affaire doy voilà mais boo leen laajee tey yow après le bac loo bëgg def dañ la naan dañuy hésiter quoi. alors quand y a cette hésitation bu amee hésitation boobu mooy feuille yooyu ñu lay indil mooy booy def terminal feuille yi ñu lay indil naan la université la jógee. coché li nga bëgg a def après loolu nga siy jot a xam. parce que sur le temps nga koy xam ni kon sensibilisation war nañu ñun ñi voilà. si si ça c'est vrai ça vrai alors euh, qu'est-ce que tu penses de ça parce que parce que. Euh, def étude yoo xamante ni da nga def euh, sa lycée est-ce que boo deful soo deful lycée wala ci ay série scientifique rek mënoo nekk euh, informaticienne chevronné boo xam ne da ngay mën a développer et tout ça est-ce que ça c'est possible ak lan lay laaj aussi en termes de engagement ci nit ki ak yu demee noonu quoi. bon man si man affaire de littéraire affaire de scientifique sax man suñ ko mënoon dindi. Hmm. <laughs> je crois que mooy gën <laughs> parce que lan lañ. Oui, le savoir. merci ça c'est am Pour pour mhm. au moins connaissance. bon Sénégal on a beaucoup de matières de toute façon on a xam si lépp. donc essayons de tout donner par exemple on a euh, euh, kii bi théorie comme niñ dit, on di un sang béni. On ñu ñu anglais jàngale espagnol jàngale je sais pas PC maths SVT mais tout en orientant la personne à ce qu'il veut être à l'avenir de bien débouché vous, exact Mhm. Et le fait d'être scientifique ou bien d'être littéraire, pour moi, c'est la même chose. De toute façon, c'est pour am ham pour am ben métier à mhm. l'avenir. Oui, ça c'est vrai. Donc, donc littéraire, comme nous l'avons dit, on a des métiers informatiques. de toute façon, am na ñoo xam ne jànguñu sax sim de parce que quand maa assisté à un événement à Fab Lab Orange Jaune mais la personne qui était là-bas nee na moom sëm de la bàyyi jàng mais en ce moment il parle bien anglais et il crée des solutions extraordinaires mm-hmm. donc est-ce que jàng bi ñuy def nii dinañu jariñ à l'avenir wala mm-hmm. pour moi mm-hmm. compétence nga war a ut compétence si boppam parce que gars yi dañuy théorie rek bon certes di nga am xam jàng baax na moom parce que di nga am xam-xam di nga for yi de gauche à droite mais pour orienter nit ki exactement ci li mu war a def il faut nga tàggat ko ci métier boobu noonu donc littéraire mun na jàng français am 20 anglais am 20 mat mu am 0 parce que même man mi man mi man mi di wax genre euh, série S laa def mais mat j'étais un peu nul en terminale mm-hmm. j'avais des trois et consorts non du yow kenn du yow kenn bëri na bëri na ci mbaram quoi <laughs> donc donc voilà donc donc donc da nga war a former nit ki mm-hmm. métier bi métier exact bi par mm-hmm. exemple informatique tu peux tu peux lui dire de genre mën nga ko wax ne mu dem xooli ay tutoriels si net bi déglu wolof teg pour am benn notion ci yenn yi bu dee déggul français jël ordinateur informaticien lu mu soxla ordinateur connexion bu baax rek la soxla ak ay cours yu baax genre ñu initier ko si benn cours par exemple su bëggee def application web su buggee nekk développeur web ñu ne ko lii HTML mhm. CSS mooy base bi après nga yokk ci JavaScript utiliser ay framework fi dugg na fii génn na fi application mobile pareil su dee yeneen su dee ay réseau réseau informatique sécurité da nga koy jàngal base bi wax ko lii après wan ko pratique bi mu avancé cerveau bi day travail à chaque fois nga koy jàngal même soo nekkee soo xamul dara parce que ñun ay liir lañu nekkoon bañ nee liir xamuñu woon dara mm-hmm. à fin dañoo jàngal jàngal évoluer di évoluer te soo nekkee mag sax tu mm-hmm. essaies d'évoluer aussi mm-hmm. au à mesure développement personnel lu tax ñu koy def pour jëm ci kanam. exactement donc voilà donc man ay scientifique littéraire si man warul nek blocage si lenn genre scientifique yi mën nga leen gis ñu dem nekk avocat comme lu ñu wax ne avocat yi genre ñuy def droit ay littéraire lañ mais non bon tu peux être scientifique faire des cours en sciences et après nekk avocat ainsi de suite ainsi de suite de toute façon daal lépp jàng la so jàngee nga avancer soo jàngul doo avancé. pour moi c'est exactement ça. ça c'est sûr c'est bien dit ah alors alors alors c'est très bien dit et je sais que ne temps bi mu ngi dem bàyyi ma dem ci benen question benen benen question bon du ko bëgg a tuddee sax ay question mais ay points la yoo xamante ni dañ ciy waxtaan xool naka lañ ciy parce que dama gis ne ci biir informatique bi am na ay métiers yoo xamante ni ay góor lañ fay gën a gis d'accord. lu ci mel ni euh, c'est très rare nga gis ay développeurs yu bëri wuñ ci Sénégal tu vois même un peu partout ci àdduna bi des fois tu vois ak ay ingénieurs en sécurité wala ñoo xamante ni spécifique or bi comme si euh, dafa am ay métier ci biir informatique bi yoo xamante ni ci la ñuy gën a gis jigéen ñi tu vois. Euh, yeneen métiers yi ci lañu gën a gis góor ñi tu vois alors lan moo waral loolu lan moo tax peut-être jigéen ñi euh, di bañ a ci métiers yi ci biir informatique bi nag laa wax quoi waxuma ci dans le cadre général informatique bi alors lan moo waral euh, affaire boobu noonu ak naka lañu war a def aussi concrètement parce que concrètement parce que tamit discussion bu ñu ko waxee aussi il faut que mu am yu concret yu ciy gën a yu ciy mën a génn concrètement naka lañu war a def aussi pour intéresser davantage jigéen ñi ci matières yooyu Euh, ci métier yi noonu su fekkee ne am na loo xam ne mën ci jaaxal yéen en tant que ñoo xamante ni am ngeen expérience ngeen dindi jaaxle boobu noonu comme ça ñoom ñu mën a dem embrasser métier yooyu euh, facilement euh, pour mën a voilà faire augmenter les choses quoi voilà. Hmm, Anta. oui bon déjà presque nit ñi tendance bi ñu am mooy boo nee scientifique dañ naan du du métier du màcc. filière jigéen en fait surtout nga ñëw wax ci informatique parce que man je me rappelle bi ñuy def suñu suñu suñu MPI rek fac science suñu rombaan jàll xool ñu ne ah fac science ngeen nekk fii métti na de surtout mel nii def série S d'habitude scientifique yi dañuy dox duñu solo du ñu def lii du ñu def lee déjà kon ñoom am na benn <laughs> caricature boo xam ne ñu ngi ko doon de deux soo ñëwee ci informatique aussi dinañ ne yii informatique moom ak jigéen c'est compliqué. Mm-hmm. parce que Thiaba l'a tout à l'heure informatique mooy mooy mooy. matière bi nga xam wala moy branche bi nga xam c'est compliqué c'est pas compliqué. Mm-hmm. parce que comme ni ma la ko waxee les informaticiens d'habitude déjà bureau yi bo xolé ñom ñuy mujj a mm-hmm. euh da ngay dem mm-hmm. wàcci wàccaale bëgg jël sa ordinateur yóbbu ko kër ga comme par exemple man parfois ma am erreur. tant que résoudre ma sama conscience du tranquille man naa ko mën naa mënuma ko résoudre awma ci solution mais faut guddi gi ma toog di ko xalaat di yàkkamti bërset ma xol un collègue nako ko waa yow doo xool li nii lii ba ñu trouver solution. wala man mu ne ci mu leer ma que lii mun naa ko def non mais mu ci continuer di ko def ak yooyu noonu donc ba pare comme am na benn caricature boo xam ne ñu ngi koy jox les les les femmes filles scientifiques surtout nag ñu nekk ci milieu informatique bi soo amul benn courage bi dëgg dëgg dëgg dëgg yow après da ngay baisser les bras te boo baisser les bras bu fekkoon ne amoon na des jeunes filles yi nga xam ne ñoom ñu ngi doon force yow ñu gis à un moment donné yow am na benn mhm. changement ñoom aussi du ñu ñeme mhm. donc ñun lu ñu lu ñu lu ñu war mooy que ñu def focus parce que am na ko ko fi wax léegi affaire bi du question de mhm. jigéen la ou góor la man je suis contre ça parce que tamit yàlla bi bind bind dafa bind góor bind jigéen ku ne mu jox ko xel am domaine yoo xam ne nii dafa jël xel ëppale ko jigéen man par exemple je donne mon exemple dama waxoon ne man tànk maa ngi jàng góor du ma raw ci classe. mm, mm, donc mm. man sama sama CI ba sama seconde maay jël première bi ma demee première S1 eh, nag laa gis ñi ma gën a taxaw mm. gën a dox <laughs> <laughs> donc sama à part de sama première S1 eh, laa gis góor ñi di ma galgal di dem ak yooyu mais man ñu me disais que ne kon donc man mm-hmm. idée bi ma am ne góor du ma raw. Mm-hmm. keneen aussi am na ko keneen am na et eh, j'en suis sûr que ne jigéen ñi nekk fii tey yëpp ci plateau bi fii nii. Mm-hmm. ñoom dañu mën faire la différence bi ñuy jàngee tout ça. donc ñun déjà suñu bëggee mbir mi gën a dem ñu élargir jigéen ñi di ci gis seen bopp affaire yi dem il faudrait que ñu dindi suñu xel que ne kii jigéen la mënul def lii amul man pour man amul métier bu jigéen mënul def. peut-être am na domaine yoo xam ne c'est strictement réservé ci des hommes mais côté jàng côté expérience côté professionnel man prof gisuma loo xam ne jigéen mënu ko def parce que non non non yàlla dafa bind góor dafa bind jigéen dafa jox xel góor dafa jox xel jigéen li fi des mooy motivation ñun nañu motiver wu xam mhm. li ñu bëgg xam lan lañ bëgg a doon mhm. aussi ñuy bàyyi xel yi nga xam ne ñu ngi ñuy xool parce que c'est très important tey man Anta invité ngeen ma ñëw naa fi wax naa sama expérience mais bu fekkee ne maa ngi rétrogradé di am yenn yi rek dina am koo xam ne xëy na mi doon wax ne Anta mu ngi fii ah dafa mel ne am na obstacle du ma dem donc ñun bu ñu wax lee fii ne scientifique dafa métti aussi ne informatique dafa métti soo ñëwee doo def non non non Nous montrer tout ce qui est bon par rapport à ce métier tout ce qui est bon par rapport à cette profession nga encore une fois dara ci ni mu metti si ñun jigéen ñi noonu la metti j'en je jure que da yow mii. Mm. jaago avant ngay toog fii nii am na lu bari loo daj. Mm. ah oui ça c'est sûr ça c'est sûr. donc waxu leen ko góor ñi ñun mm-hmm. aussi li ñu li ñu war en tant que des des des anciens noonu mm-hmm. laa ko mën a waxee. Mm-hmm. ne ñu ne ñu xam ne lu ñu munti def rek am na ñu nekk suñu ginnaaw. lu ñu munti def am na lu nekk suñu ginnaaw. te bu fekkee ne dañu bëgg les femmes di embrasser aussi les scientifiques di dem de plus en plus ci informatique bi nañ leen gën di rassurer nañu opti opti opti optimiste et que nañ leen di wax ne mbir mi c'est possible il faut y croire il faut que compétence il faut que la motivation il faut l'expérience et que vous y arriverez comme que les hommes nuñ ci pour moi c'est ça machallah alors je pense que témoignage Bob, c'est hyper top c'est top de chez top comme ni il faut le di alors Franceline Franceline dafa mel ni am na loo ci bëgg allez vas-y alors man me rejoindre un peu sur euh, sœur yi lu ñu mhm. euh, Anta mhm. euh, Fatmata Moi mhm. je me dis qu'on a un problème culturel ok loolu lañu am oui ak euh, stéréotype yi la ñu war a bàyyi mhm. parce que boo xoolee source bi mhm. mooy le fait que à chaque fois ñu ne euh, jigéen warul jigéen mënul embrasser des des études scientifiques déjà foofu mooy source bi en fait boobu la ñu war a njëkk a régler ñu génne tout ce qui est stéréotype bu ñu jógee ci loolu ñu dem euh, euh, rééducation bi aussi ñu changer ko commencer initier xale yi depuis le bas âge susciter leen en fait jox leen envie de de créer d'innover parce que xale tay dès le bas âge boo demee nga defal ko euh, nga won ko tuuti nan la ñuy nan la ñuy defaree benn page et tout ça lan lay wax dafay naan que moom héros la et tout dafay nekk moom tey def na li nga xamante ne gis na résultat bi nii quoi tu vois xam nga tey boo calculer moom dara nga gis ko là c'est autre chose instant boobu déjà da ngay susciter xale bi da ngay susciter xale pour mu embrasser ces métiers scientifiques là wax ko ne aussi ñi nga xamante ne genre euh, dépassé nañu euh, comme man lu ma dal tey euh, def def série littéraire wax leen aussi que ne c'est pas parce que série littéraire nga def que mënoo embrasser des des des métiers numériques. Mhm, non mhm. man am naa benn exemple au bureau. Mhm. sama benn benn stagiaire la woon bi nga xamante ne licence euh, licence en anglais la def mais tey dafa dafa doon gis ñun ñu doon codé et tout ça mu ne non moom loolu la bëgg. Et pourtant, je l'ai formé et tout, il a réussi. Actuellement, il fait des sites, il fait des choses extraordinaires. Il tu vois un peu. Donc, pour man, des solutions humaines, créer des écoles d'excellence de jeunes filles, solution-là, pour les susciter à embrasser des, séries scientifiques dans le euh, domaine informatique. Bah, pareil, euh, du bourse d'excellence. Tout à l'heure, dès le début, tu as parlé de rôle modèle. Mm-hmm donc tey jii nii euh, ñu si bëri man tey kan moo ma boost kan kan moo tax ma choisir euh, def informatique. Mm-hmm. Chloé la Chloé kenn xamu ko film la. tu tu vois mm-hmm. donc comme tu as dit mm-hmm. il faut que tey au Sénégal ñu xool jigéen yi nga xamante ne excellé nañ dans ce domaine là ñu nekk des rôles modèles pour nos jeunes pour nos jeunes euh, jeunes sœurs quoi wan na leen ne ñii nii lii lañ def te réussir nañ si donc pourquoi pas toi. tey euh, bi mooy journée euh, internationale des femmes euh, dans dans le digital ñooñu tey qu'est-ce qu'ils ont ce qu'elles ont dit du moins dañoo ne donc elles génne nañ sax benn livre bu tudd elles changent le monde quoi tey ñooñu voilà, elle change le monde. C'est écrit par euh, Delphine Rémy Bouton. Mhm. Ils, ont, ils, ont, ils ont relevé une soixantaine de femmes mhm. qui sont dans les TIC. Ils ont maintenu des voir et tout ça. ils beaucoup lire, de les jeunes qui ont envie ces études-là. Donc nous aussi de notre côté au Sénégal, pour euh, susciter les jeunes filles. Il y a et je pense que c'est voilà. Ah ouais mhm. donc je dis aussi par rapport à ce stéréotypique, nous mhm. génnee ko mhm. euh, qu'on écoute en fait euh, la parole des femmes de les sensibiliser à la à la à la diversité tey ñu xam ne tey hormis hormis euh, tout ce qui est des métiers yu ñuy wax métier de femmes, ay comptable etc. cetera amul métier femme métier góor métier femme métier homme ko en fait mm-hmm. donc loolu lañu war a génnee dañ ko war a élaguer mm-hmm. teg ko fële te xam ne lu góor mën jigéen mën na ko def quoi mm. ils sont pas plus intelligents que nous non non voilà donc tey jii nii jigéen bu demee ba embrasser métier yooyu war nañ fa sax mën a gën a raw góor yi en mm-hmm. fait alors mais mais même constat bi ma def c'est-à-dire man toutes les femmes yi nga xamante ne xam naa leen qui font très bien leur métier mais ils le font mieux que les hommes man le ça euh, voilà buñ caaxaanul toog liggéey normal amul ben góor bu len meuna def euh, ils sont elles sont très sérieuses c'est li ñuy elles sont hyper calées carrées voilà ça se passe normal tu vois quand tu leur donnes des responsabilités tout est carré alors euh, ça franchement man dafa nek lo xam ne koy dund chaque jour donc koy gis ci milieu bi et tout ça et je pense que loolu euh, déjà ben signe la pour wan ni ñi c'est possible alors man limay wax len rek la moy it is possible c'est possible mën na tu vois c'est-à-dire affaire bi nekul ci wax ne jigéen ñi mën nañ def li mën nañ def li non non affaire xam nga ci fu mu nekk man je pense pour wan jigéen ñi ne leen yéen mën ngeen. tu vois parce que le truc mooy que ne da ci gis ñoo xamante ni déjà euh, des fois man émission bi may def nii am na si ñoo xam ne pour nga invité leen problème la parce que am nañu si femme yoo xam dañuy dañuy rus dañuy rus a wax am complexe yi wala genre demee noonu comprendre alors loolu lay jéem wax nag ne il faut que femme yi ci seen biir ak ñëpp sax ñëpp ñëpp quoi wan femme yi ne leen yéen vous n'avez pas besoin ñu leen wax sax ne leen ci ngeen bokk ah ah, ah. en fait loolu moom la ñuy dakk supprimer quoi femme bi ci boppam moom il faut que mu sentir ne moom bu mu am benn gêne pour wax li mu xalaat tu vois mu il faut que mu jógal boppam dem te parce que aussi tamit nit ki mënoo ko xëcc indi ko danga koy wax rek mhm. ci boppam bi mais moom mooy jógal boppam dem tu vois alors il faut que nag ñu wan leen ne leen comme ni ngeen koy defee nii il faut que ñu wan leen ay modèle ñu xam ne lii c'est possible ñu dem jóg dem def ko loolu mooy pour mag ji mais beneen couche bi aussi mooy xale yi tu vois ñi nga xam man ñu ñu intéressé tu vois xale yu ndaw yi suñ doom yi ak suñ sœur yi ak ñi nga xamante ñu ngi féete euh, ci suuf tu vois il faut que ñu wan leen ay modèles yu baax c'est pas bien nga wan leen ay modèles comme Beyoncé nga wan leen ay modèles comme des stars mais ëllëg ay stars dañuy bëgg doon tu vois il faut pas les montrer des modèles comme ay euh, kii il a acheté euh, Kim Kardashian il a acheté des xaw ma des trucs à mais kooku xaalis mooy nekk ci boppam bi te te te wanuñ ko njëkkuñ ko woon liggéey su xaalis nekkee sa mhm. bopp bi te wanuñ la liggéey rek dangay ngay foog ne xaalis moo war a jiitu liggéey liggéey amul solo. alors donc modèle yooyu dafa am solo ñun ñi nga xamante ni fi mu toll nii yaa ngi am say doom am say euh, njaboot nekk ci kër yi tu vois foofu la affaire bi war a commencer déjà en tant que femme tu éduques éduques ton enfant ci. Mhm. environnement boobu noonu wan ko ne ko jàng dafa am solo liggéey moo la mën a may lépp ci àdduna tu alors et je pense que avec ça dinañ am génération boo xamante ni ëllëg euh, dañuy nekk di euh, man bëri na moo yoo xam ne sax bëgguma koy émancipation man j'aime pas ces mots là parce que on est comme ni nga ko waxee on est tous ñëpp même chose lañ quoi ay nit lañ quoi tu vois donc du coup kenn ku ci nekk rek war nga mun a am loo xamante ni yaa koy defal sa bopp euh, voilà comme ça lépp mun a dem ci kanam quoi je pense man loolu laa ci xalaat quoi ouais effectivement et pour euh, pour les solutions man je me dis que tay comme li nga wax dañu wara encourager mm-hmm. pour euh, pour créer en fait c'est pas comme nous, nous ñooy créer mm-hmm. euh, pour ay jigen exactement est-ce que tu vois. exactement par exemple le mel l'association association le regrouper l'ensemble des femmes qui sont dans les TIC nous lu ñu def dafa programme de mentorat buñu euh, chaque mois dañuy regrouper les filles yu nekk lycée yi di aider en communication de prise de parole en public di leen booster di en fait pour comme ça nous embrasser des euh, des métiers de des métiers numériques. bien sûr fit quoi il faut may le loolu solution la ñu dem quoi. effectivement may fit. Mhm. donc ñun c'est ce qu'on fait euh, FESTIC dañuy regrouper dañuy nous ci lycée yi jël fa ay xale yu ndaw euh, dajale leen. Euh, di leen di leen di leen di leen jàngal. di leen ñaax baax xale yu ndaw yooyu moom am na solo mhm. empêcher aussi tout ce qui est discrimination par exemple man tey ku ñëw bureau suñu salle man donc maa fa nekk jigéen man donc maa fa nekk jigéen buy def informatique donc c'est un problème bonne à ah, euh, directrice technique quand kan le jigéen ah bon ah tu code mhm. euh, damay connais bien mhm, sûr. Mhm, pourquoi pas pourquoi pas de ma donc une solution est le bokk nous intégrer aussi euh, des formations former des formateurs tey fonctionnaires nous ñu former dans les dans dans le numérique comme ça dès le bas âge nous ñu intégrer. exactement ci école et je pense que ça commence ça commence parce que sama m'a donné la nekk institut ci Notre-Dame, te dañuy informatique donc loolu je trouve que c'est déjà mhm, bien c'est cool une stratégie de une pour promouvoir aussi euh, la sécurité en ligne, mesurer des progrès réalisés pour euh, combler en fait cet écart en fait qu'on constate entre les hommes et les femmes dans le numérique. Donc il y a plein de solutions qui sont utilisées pour booster les, les, jeunes filles à embrasser ces, ces, métiers-là. Tu as parlé de, euh, de cyber informatique Amna ay métiers on constate que plus, beaucoup de femmes en fait ont ci ay développement web les ñuy nekk côté design etc. parce que dañu ne jigéen ñi ñoo gën a xam et tout ça donc ce qui est côté euh, cybersécurité ay. Euh, ay big data et cetera on voit plus d'hommes là-bas ouais, parce que pour nous, on a des calculs, mm -hmm. tu dis notre big data c'est des algorithmes et tout ça euh, dañuy ñëwaat encore scientifique ci science bi loolu yëpp mhm. jigéen ñi mën nañ ko mën nañ ko oui il faut qu'on les encourage et euh, les les informer dès le départ dès le bas âge man pour man secret bi faut rek la nekk en man li may ñaan moy li ñaan moom ngir yàlla en fait les familles yi nga ci dans des métiers très pointus dans la technologie Vous ñu éviter invité rek ñëw mhm. leen bu leen am hésitation même boo leen ñëw sax di wax ñaari ñetti sax c'est bon mais l'essentiel que les personnes vous découvrent vous ramenez, c'est possible c'est possible tu vois ñu elles sont là voilà elles occupent te li c'est vrai hein. Les familles elles occupent des postes stratégiques extraordinaires tu vois dans les entreprises alors il faut que nous xam leen il faut que suñu doom yi suñu yi xam pour que mun a jël si ñoom exemple pour mun changer la donne dans l'avenir très proche bi ñëw nii quoi alors Fatoumata je pense que am na loo ci bëgg yokk yow allez vas-y. Euh, ouais, ce que je voulais dire, je pense que France Linsar c'était à propos mm-hmm. de formation. Je pense que dès le bas âge, je lolo tax out of code daf ma neex of kon da ngay dem xale bi di foo di jàngaar mu leer ko ne bu bëtee lii am na code bu ci ginnaaw looloo tax euh, dessin animé bi bougé kon xale bi de day tax xale bi day intéressé wu danaan lii lan moo tax muy bougé kon dessin animé yi may seetaan yëpp daa am lu nekk ci ginnaaw day tax mu intéressé wu mm-hmm. ci informatique mm-hmm. déjà ci ordinateur donc une heure de temps boo xam ne mm-hmm. day def pour euh, dessin animé bi bougé dem laali ji bi et tout ça

comme loolu mooy waxtaanam yow del xool genre dessin animé yi muy seetaan moom tout le temps dalay boo toogee dala naan ordinateur bi lan moo nekk ci biir daa am ventilateur nga nekk fa di warante moom parce que dessin animé bi muy seetaan les fixe la xaw ma ñoom noonu la dañ leen di woon appareil bu nekk lan moo nekk ci biir du coup comme damaa nekk si domaine immobilier bi tamit ma tasanteeg ay euh, ñoo xam ne géospatial la ñuy def ma loué leen mm-hmm. ma ne leen mm-hmm. man ne sama yéen li ngeen def la bëgg

mentoré di la wax boo amee bac lii ngay def nga demaat ba deuxième année licence ñi nekk tey jii di def cybersécurité big data bi ñoom war nañoo mën a ñëw di def ay tour si école yi ñuy def domaine scientifique yeeg yooyu ñëw ne la ah yaa ngi def lii est ce que xam nga ne master bi mën nga bañ a continuer si lii nga spécialisé wu en ça loolu yëpp day tax nit découvrir découvrir parce que man mi def naa façon concours bu ne man concours Sénégal yëpp mën naa ne def naa ko euh, école ci mhm. euh, école militaire bu santé militaire def naa ko damay def rek parce que dama à la base dama bëgg a sol tenue grandes écoles militaires def naa ko sous-officier def naa ko parce que lan laa bëggoon nekk bëggoon naa nekk informaticienne dans l'armée di leen topp di leen indiquer. Hmm. ok <laughs> oui c'est sûr macha allah. Hmm. loolu lépp sam papa xëy na bëggoon dama def ko mais du tee tout le temps yow xool sa doom li nga li mu bëgg a def nga ko si ot si lay gën a génnee parce que loolu la bëgg loolu la bëgg kon je pense que niveau yépp lañ war a mën a coacher xale yi suñu doom di leen encourager pour ñu mën a am métier de l'avenir yi mm. et ça me donne même des idées euh, dinaa def benn épisode boo xamante ni ça sera uniquement la tech et les enfants quoi ça je le ferai fii nii laa ko amee mm. idée bi et je vais organiser ça je connais voilà. des gars après yéen ñi sax on va vous inviter comme ça ñu gën waxtaan ci domaine boobu gën ci xuus ak suñu doom yi euh, pour benen génération bo xamanteni franchement dinañ gën a ñor ci affaire bobu non quoi franchement. alors voilà. on tire en longueur affaire bi ngi gudd comme gars yi li ñu koy waxee di dus nag bi xajul cin bi dernier point bi rek lañuy développer après mu jeex mooy euh, la femme et auto-entrepreneuriat yi ñuy def ci bi technologie bi d'accord alors yéen d'après seen expérience ak li ngeen jot a dund yan secret ngeen xam ne ngeen ngeen xalaat ne euh, ngeen mun a joxe pour que tey femmes yi mun a réussir ci di auto entreprendre ci euh, domaine technologie bi. Mhm. Anta. Euh, ouais désolé alors je pense que <laughs> l'auto entrepreneuriat moom suñu suñu suñu directrice wuti ko bi mhm. ah. Mhm. France, les après des gagnants, ouais qui bon. Ma différence, ma différence avec les autres filles, mm. c'est vrai que moi, lancer, goût, qui, qui, tout ce qui est auto-entrepreneuriat. Donc, moi, je fais règle, de développer, même si tu as un moment qui support, oui. Donc, je dis non mais comme comme ni c'est toujours intéressant parce que aussi suñu métier nekkul ne continuer par exemple donner des développeurs jusqu'à vie non il faut à un certain moment donné ñu xam capitaliser nañ expérience am nañ ben niveau bo xam ne war nañu mën a demal suñu bopp même en étant employé quelque part war nga mën a am loo xam ne war nga ci comme je l'ai dit idée yi ñu fi man par exemple par rapport à ça mais officialiser gu ma ko et en en fait lii dina permettre déjà partage d'expérience ak ñi nga déjà ñoom ñu ngi ci arranger parce que bu fekkee maa ngi ciy bëgg a dugg et que ñun ñëpp ñu nekk ci même milieu beeg yooyu ñoom ak seen partage d'expérience dinañu permettre ñun mhm. ñuy waaj a lancer wu ñu xam ci fan la ñuy teg suñuy tànk et tout ça et que mhm. dina permettre aussi ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi ciy waaj a lancer wu aussi ñu kii comme ni ñu ko waxee informatique mooy métier bi nga xam ne c'est trop large donc lu nekk man man man man mën nga ko ci def déjà tout communication informatique rek communication la déjà donc tey ubbi tey sa benn cabinet boo xam ne c'est un conseil en communication wala leneen quand même c'est de l'informatique parce que tey lépp loo et gis ay visuel la outils ay images yi nga xam da partager sur les réseaux sociaux partout donc tout ce qui est derrière c'est de l'informatique et que kon ñun bu fekkee ne ñu ngi ci milieu bi xam ni war nañ a profité occasion la pour mettre ko en place un dinañu tax benn euh, indépendance financière et tout ça ñu am mais de deux aussi dinañ participer ci tout ce qui est emploi dans notre pays parce que tey bu fekkee nga ubbi nga cabinet de conseil wala tout ce qui est communication wala euh, webmaster et tout ne serait deux personnes quand même di nga leen jël deux yooyu nga leen jël jël di nga leen fay doo leen fay mais am na mm. euh, pauvreté wala manque d'emploi bu nekk ci pays boo xam ne yow participer nga ci cent pour autant nga mhm, xam ko mhm. donc <laughs> na euh, métier boo xam ne la ça paye bien mais aussi au delà de ça ñun aussi nañu xelaat ne dafa am loo xam ne ñun aussi dañ ko war a jëmbat euh, marqué suñu empreinte ba nga xam ne tey bu demee suñuy morom tey bu ñu ñëwee dinañ xam ne lii ñoo ko defoon wax na ko c'est bien nga def dara tey nit ñu utiliser ko nga xam ne lii sama produit la maa def mais c'est encore beaucoup plus bon tey nga créer dara nga complemento te mhm. dara def ko gis ay nit di si suturlu di ci dab seeni wërsëg mu leer la ne lii nii yow la donc man déjà je félicite je remercie ces dames yi nga xam ne déjà ñoom lancé wu nañ mhm. et que di xaar ñoom aussi ñu partagé wu rek jox ma clé yeeg yooyu man aussi ma bañ a hésiter commencer dem implémenter euh, man aussi Saloum comme ñun ay Saloum la ñu dellu ko ñu dëkk yaago yaa ngi ne Saloum la mais ñun aussi dafa am travail ba am important boo xam ne dañ ko war a def xëy na ñoom caban yi boo leen dégloo ñoom français xëy na ñoom aussi sont des des des des nit ñoo xam ne ñi ci ville bi lañ dëkk seen parents ville mais Dakar donc sinon avant tout ça maa ngi et que man mun wax ne euh, mm-hmm. sama village ba sama village mm-hmm. est-ce que je suis pas la seule fille master série scientifique tu comprends ñun travail important franchement au-delà du village de la commune du département peut-être mënuloo compter une centaine de filles yoo xam ne ni tey am nañ seen master de si euh, série scientifique n'importe quel domaine ak yooyu noonu donc am na travail bu ñu war a def et que par rapport à l'entrepreneuriat tey bu ñu jëlee tey man Anta ma am tey sama benn entreprise wala am sama benn cabinet implémenté ko au village def ko fa ñu ne ah, kii lan moo ko permettre c'est parce que cursus bii la jaar lii la jaar lii la jaar après mu def li loolu dina permettre tey ces ces ces jeunes dames là ñoom aussi ñu gën a carrément góorgóorlu et que dina permettre aussi ñuy gën a embrasser wu série série scientifique bi di lancé aussi un appel à nos parents qui sont au village aussi que ñu bàyyi jigéen ñi ñuy jàng parce que loolu man ça à cœur mm-hmm. tey ñun nekk ci ville bi baax na di nga gis ku ci am dem ba 25 ans kenn du la teg pression mariage et tout mhm. Mhm. mais au village tu as 13 ans on te dit que looy xaar pour sëy looy xaar pour sëy looy xaar pour sëy suñuy parents lañ suñuy yaay lañ suñuy papa lañ mënuñ leen a bañal yenn yi mais aussi à un moment donné boo gisee jigéen muy jàng di avancer nga di ko teg pression boobu dafa am loo xam ne da koy freiner et que bu ko freiner rek yenn yi dootu ci mën a sori ak yooyu donc bu ñu gisee suñu sœur yi suñu doom yi di jàng di avancer nañ leen bàyyi ñu continuer seen étude parce que tout viendra naturellement tey yàlla mënul wax ne à l'âge de 35 ans ngay am jëkkër mu may la ko à l'âge de 15 ans mënul nekk bu ne à l'âge de 13 ans donc, koy am danga koy am mais comme yàlla dëggul nag nañu bàyyi pression bi nga xam ne dañuy jël di ko teg jigéen ñi parce que dara ni sonal man ñun mm-hmm. force moo ñu may tey ñuy avancer. non mais moo tax moo tax ngeen nekk ay modèle sax déjà quoi. c'est ça mm-hmm. mais chaque jour tey foo tourné ñu ne la looy xaar. Mm-hmm. donc comme depuis ñu doon jàng la ñu doon wax looy xaar nga am bac ñu ne léegi am nga bac looy xaar parce que foog nañ ne bac bi boo ko amee la nga ne damay jàng pare nga jàng pare am nga sa diplôme ñu ne la looy xaar foog du tey nit ku nekk ak sa destin nit nekk ak li nga xam ne moom nga tracé sa bopp ne chemin bi nga war a suivre bu fekkee ne dañu bëgg biir mi avancer bëgg lii fii embrasser la série scientifique bëgg aussi ñu ci gën di ci euh, may suñu bopp loo xam ne bëgg nañ ko man si sutur suñuy parents bëgg moy avancé lo deuk ñu ci il faut que ñu nit ci lu ñu en tout cas c'était man c'était un message bo xamné ci mot de la fin <laughs> mais au moins ma lancé ñi nga quand même a ci ville yi ngeen message ci ñi nga xamné ñu ngi ci village nit mëna gis Anta non non parce que Anta dafa dem Dakar motax bu bëgg mais bu ñu gisé ni ki joggé village tay toll ci niveau bi ki dëkk Dakar juddoo fa yaroo fa màggee fa même cursus la def ak Anta te réussir na mhm. donc ñeneen ñi nga xam ne ñu ci ginnaaw war nañ leen mën a accompagner bu baax a baax aussi ñoom oh, c'est un message très fort c'est un message très fort mais yow politicienne nga da ngay politique de <laughs> bon yaa ngi naan politique mais ah. grave loolu loolu benn émission la. yaa ko tey dañuy tey dañuy numérique bàyyi politique. non non non da ngay politique yow mais loolu benn débat la incha allah mais alors alors alors Franceline. yow bëggoon naa nga jox ma sa input par rapport ak loolu noonu c'est-à-dire euh, auto entrepreneuriat bi yan secret tey nga mën a jox képp jigéen boo xamante ni mu ngi bëgg auto entreprendre ci wàllum xarala yu bees yi yan secret nga ko mën a jox yan astuce ah, wala yan dénkaane nga ko mën a jox yoo xamante ni bu si jaaree dina mën a euh, am réussite incha allah euh, Diago, euh, pour répondre à, à cette question, du lenn lu dul liggéey ak gëm sa bopp. Ñaar. liggéey parce que mënoo nekk ci domaine entre ci ci domaine euh, TIC si mm-hmm. domaine nouvelle technologie nga nga tayal a jàng mënta ne parce que technologie dafay avancer dafa gaaw en plus donc il faut ngay update ngay def mise à jour tout le temps donc il faut ngay jàng di jàng tout le temps ñun ñi ay mag lañu léegi <laughs> mais ñu ngi continuer di jàng tu vois ba pare nga oser am fit am fit osé oser entreprendre euh, il n'y a pas longtemps dans créé une page Facebook élégance à 360 degrés ah. donc comme de bëgg ça c'est cool de mon dama bëgg et tout ça euh, nekk xale laa leen expliqué que dama doon jaay donc jaay dafa nekk li nga xam ne dama ko bëgg donc je me suis dit mais attends euh, vu que aw ma xaalis pour ubbi boutique bu ngandee wala yooyu noonu ce que je vais faire damay créer benn page Facebook tuddee ko élégance à trois cent soixante degré d'ailleurs temps yëpp dama ko mettre en stand-by mais actuellement lu ma bëgg mooy c'est euh, surtout e-commerce comme ça produit yu may jaay ma dugal ko ci ay yére tout ça ma dugal ko ci vu que instant bi aw ma xaalis bu bëri pour créer boutique et tout ma créer benn boutique virtuelle tu, vois, pourquoi pas, vu que informatique la def j'ai les compétences qu'il faut pour le faire donc je vais mes utiliser mes compétences pour avancer pourquoi pas ça c'est sûr est-ce que tu vois vois très bien. Mhm. Voilà. Donc, hormis ça, euh, je suis cofondatrice de Autonomia à ici. Autonomia, mhm. euh, ben solution euh, pour que c'est en cours, déployer mhm. euh, site bi, mais instant bi, ben ko mettre en stand-by pour l'instant, le temps de bien euh, affiner les choses en mhm. fait. Donc, Autonomia, euh, financement, de nous financement des femmes. renforcer ses capacité financer leen et aider à ce que nous ñu développer cette activité mhm. dans le euh, domaine de yu par exemple tout ce qui est euh, vente en ligne créer page Facebook euh, di et tout donc ñun comme nous le savons, donc on s'est dit que même bu nous dañu def euh, créer une entreprise pour def microfinance première des choses avant de financer pour avancer il faut nga former ko waaw nga former Euh, yokkal ko xam-xamam ci xarala yu bees yi et tout ça woon ko ne jarul ngay am euh, boutique bu mag jarul ngay am place pour jaay mun nga jaay virtuellement sa kër ngay toog nga am sa produit nga dugal ko internet nit ki gis ko intéressé wu woo la téléphone fi nga toog nga jaay ko vivre ko te teewut mhm. nga yaa ngi def sa yeneen liggéey. exactement si si yu am na solo. donc mhm. loolu mooy suñu objectif. Mhm. smart euh, smart issue euh, donc dañ lu ñu bëggal mooy créer benn système d'information. bi nga xam ne mooy gérer tout ce qui est syndic. par exemple yenn immeuble yu mag yi. Euh, créer une plateforme bi nga mm-hmm. genre ay cotisation par mois mm-hmm. pour euh, gestion des ordures mm-hmm. etc., cetera mais ça c'est ça c'est cool hein, parce que initiative je pense que c'est hyper intéressant hein, franchement ouais surtout les surtout bi <laughs> smart smart et je suis c'est hyper intéressant mm. voilà donc euh, projet bi plateforme smart sending tout quoi standing, voilà, muy gérer tout ce qui est euh, euh, immeuble, et cetera. donc loolu donc man pour man secret secret bi lenn la mooy jang, continuer di pas n'y a pas am fit euh, oser entreprendre loolu soo ko amee tey di nga mën a avancer ba euh, bu ragal échec ku échouer nga toog doo mës avancer. Mm-hmm. ça c'est vrai ñu avancé ci àdduna bi c'est parce que dañoo échoué une fois te échec man je me dis que amul on apprend tey jii vous bu dee da nga tu apprends de ton échec donc loolu échoué kese mais jàng nga jàng nga li nga xamante ne tey boo entreprendre c'est beneen projet doo ko defaat. Mhm, exactement merci beaucoup. donc loolu moo lay permettre nga avancer ça franchement c'est vrai. Mhm, ouais. Va pare gérer sa i réputation. Euh, bu fekkee da nga bëgg a sori trop ci euh, domaine technologie bi il faut nga gérer sa réputation maanaam sa page Facebook yi wala fa def du n'importe quoi et tout ça donc loolu noonu aussi c'est très important pour ñun ñi nga xamante ne ñu ngi ci euh, domaine tech parce que tey lépp loo def lépp loo wax ak lépp loo ne lii laay def rek lenn la ñu njëkk a def ak fépp foo taxaw présenté wu mooy dugg ci internet Google def sa et tout ça mu génn la sa page Facebook yi gars yi donc à travers juste tes pages mm-hmm. Facebook mm-hmm. LinkedIn et autres mun mm-hmm. nañ xam yow ban façon nit ça c'est vrai mun nañ xam ndax yow mun nañ la def confiance ou pas mhm. donc quand tu veux translate dagg de moo tax jaago ñëw fii naan ma Anta da ngay politique xam naa ne dafa dugg wër ba pare ñëw toog <laughs> moo tax foog ñu xam li ñuy partage non waaw wëruma sax non wëruma wëruma wëruma damaa xool tuuti rek tuuti laa xool rek <laughs> li ñuy dugg internet xool sa parcours xool yëpp nañ naan ah kii est ce que mën nañ ko def confiance est ce que mën nañ ko confier des choses. donc c'est une il faut nga gérer. en amont balaa ngay ci yenn. ça c'est sûr et je pense que message bi dinañ ko capté bu baax ñëpp ñu ñuy déglu dinañ capté message bu baax euh, et encore une fois maa ngi wax ne euh, jigéen ñi waruñoo xaar lenn sax ñu leen koy décider wala ñu leen wax ne war ngeen mën a def nangam ak nangam nit leen. am nga bët am nga nopp am nga xel am nga xol am nga yaram am nga doole am nga tout tu vois jógal def li nga sentir c'est-à-dire ci wàllu xam-xam amul benn xam-xam bu ñu wax ne kii moo ko war a am këri waru ko war a am tu vois donc du coup initiative la bàyyi tayal bi tu vois man nag damay clash yenn saa ay ay xale yu jigéen yu bari damay leen wax ne da ngeen tayal quoi tu vois ah non non dama xaw a métti quoi lii yëfu góor la tu vois góor amul amul donc tout j'ai même vu des femmes yoo et ay mécaniciens leen tu vois dañuy xëy nekk naaj bi di ci alors il y a plus de barrière amatul benn lu mun kenn je pense que Fatoumata am na bëgg ajouter je pense Fatoumata rapidement wala loxo bi na. ah xam ah, ok. <laughs> ah ok vas-y Fatoumata en fait dama ne comme affaire u jaay la ñuy wax ak affaire u activité man moom xam mhm. man ku xam xam ne jaay rek lay mhm. def keroog sama yaay war ma benn suba teel mu ne ma <laughs> Caro ma ko ah mu booy jógee ba sa xel jox la pour jaay nit ñun nga bàyyi ñu fi dégg nga euh. <laughs> <laughs> damaa choqué damaa ah, ah, choqué ah man kaa bu yeboo parce neen karaw yi yow baa doo mujjee jaay nit ñi ay karaw mooy sa bopp. <laughs> c'est vrai c'est boo amee mm-hmm. loo boo ci bëggee génn yow waroo toog rek. Mm-hmm. bien vrai salaire neex na mais tamit leneen lu ci tegu rek bonus la. Mm-hmm. te leneen loolu ci tegu mën nañ ko jël investiraat ko feneen pour mën a euh, pour mën a am lu ëpp ëpp. déjà euh, man dama am KBS mooy Caroline Business Services. foofu man ak sama samay xarit ñoo ko ba créé on est dans l'événementiel événementiel boobu tey ji suñu ay sio mag bu ñuy organiser fii ay kin place ay forum edutress bu ñuy organiser yëpp dañ ma koy jox léegi yow boo organiser yu ba pare di nga am man tey suñ ma laajee hôtesse pour organisation bi damay jël samay cousine kon loolu lépp ñoom dañ ciy amaale leneen ba pare dina tax ñoom ñu sawar bu ëllëgee comprendre tey jii man toog naa benn moment boo xam ne liggéeyu ma awma liggéey mais qu'est-ce que j'ai fait tabaski moo jotoon xaw ma korite ma créé fi ay pag pag yooyu sama yaay moo ma menacé ba ma acti jour boobu benn jour dem naa si dix fois marché dama créé ay pag trente mille quarante cinq mille quatre vingt cinq mille da ngay ñëw ba toog ma publier ko si sama plateforme yëpp dangay ngay ñëw ba toog muy taw ñu woo la ne la Caro dama bëggoon benn paquet nga dem marché nduggi ji ñëw woo livreur bi mu ñëw jël yóbbu balaa ngay toog keneen woowaat la mën mm-hmm. nga xam ne dama seexlu poto poto yi ma dugg ci ndax lan wutum dërëm oh. léegi di defar ay pos mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> bokk ci benn fois ah, ah, euh, fois bi pour entrepreneur yi la entrepreneur ay femmes entrepreneur ñoo ko organiser woon mhm. table bi vingt cinq mille mais dama toog ne vingt cinq mille yi de mhm. mën naa ko investir dinaa ci amaat leneen mhm. te bi ma ba ay bi ñu toogee ba ay dix neuf trente cinq mille yooyu jaay ak gumoon ma table bi génn mais xaaral damaa jóg jël sama pot table bu nekk ma dem ne la doo jënd am koo xam ne ay mburaake la doon jaay ma ne ko neex na mu ne ma ne ko su ma jëndee nga jënd noo kos ma jënd te moom mujj gi li muy jaay 1000 francs la woon te jënd na 9500 si man rien que pour te dire que yow soo bëggee mën nga ko jigéen ñi ñoo war a bàyyi di calculer frein yi frein de la société frein réseaux sociaux pour ne rus naa dem soyons des femmes accomplies accomplies mhm. mooy tey ji bu rusa dem mhm. jaayi mhm. ji fruit si bopp koñ l'essentiel na nekk yow li nga xam ne moom nga bëgg tey ji boo bëggee jaay produit man formé wu formé wu si produit bi nga maîtriser sa produit mhm. après nga établir notoriété ba ñëpp xam ko man ndànk-ndànk mhm. laay jaayee ndànk-ndànk ba keneen ku soxla la mhm. dinañ la recommander au niveau national au niveau de ton entourage après nga xool au niveau international bañ a tamit xaar ba am ay millions pour voilà bañ a xaar ba am millions pour euh, créer sa entreprise à partir de dërëm bi nga am tey jëndal loo xam ne dërëm lay jar nga jaayee ko ñaar dërëm ñaar dërëm yooyu nga jënd lu ñetti dërëm ainsi de suite ainsi de suite ndànk ndànk xaaru na xëyul sotti. Anta politicien la kii commerçante bu <laughs> <laughs> foog nga foog nga former ma quoi. <laughs> non ah oui mais c'est c'est c'est c'est parfait. mais c'est sûr nank nank la nank nank nank nank mooy jàpp golo si ñaay comme ni ñu koy waxee ci wolof et je pense que li euh, mu ko waxee léegi li duuf ci nag bi xaju ci cin bi on est déjà sur une heure de temps et quelque je pense que bi ma dalee def épisode ba léegi mosuma def épisode bu nekk une heure trente c'est parce que li ñuy waxtaan dafa am solo c'est passionnant et aussi dafa euh, c'est-à-dire comme ni ñu koy waxee ci wolof rek euh, dañuy wax naan bés bu tuuti borom lay tolloon mais c'est vrai ah jigéen ñi tuuti wuñ quoi tu vois parce que

famille aussi ñu jappalé sen bop bañ a bay hésitation bi xalaat non non tu vois vite fait et je pense que euh, dinañ am lu lu bari man dama koy faral di wax à tout moment ben idole la am ci sama aduna te c'est une femme et c'est ma grande sœur man dama koy wax tout le temps au effort fort sama idole tu vois c'est une informaticienne docteur en informatique ba fi may wax ak yow chaque jour fay def trajet Paris Lyon di jangale ji chaque jour elle est tellement brave que tu vois man dama nan ki c'est du extraterrestre là quoi tu vois alors man kooku mon nekk sama idole depuis sama enfance ba tu vois pour vous dire que ne la femme dafa nek lo xamanteni lu mu rek da koy def da koy am quoi tu vois c'est parce que yalla moko may force boobu donc nako utiliser bu baax pour mën avancer surtout nak ci technologie bi waxuma ñeneen ñi nag waxuma ñeneen ay droit ay affaires non technologie là <laughs> donc euh, je pense que war nañ ci mën alors émission émission bi nak day nekk ci jeexital bi lan mot de la fin euh, Anta ma commencer par yow sa mot de la fin. non non non non non non, non, non, boobu léegi quoi dafa sa mot de la fin. <laughs> merci beaucoup maa ngi leen doon déglu de avec attention Caroline moom. li mu wax yëpp dëgg la Caroline lépp lay jaay. <laughs> des fois nag ma toppandoo ko si côté boobu noonu. ah oui c'est bien c'est bien euh, <laughs> macha allah. bon sama de la fin rek mooy encore comme li may rek encourager jeunes filles xale yu jigéen ñi mm-hmm. Mm-hmm. ak xale yu góor yi sax man ñëpp laa bëgg a encourager. <laughs> ça c'est ça nga jéem a mm-hmm. sob. Mm-hmm. sob nag positivement sob si lu baax ah, pas sob ci lu bon. gën leen a sob <laughs> ngeen xam euh, métiers yi surtout. Euh, yan métier moo leen ni euh, moo moom ngeen gën a bëgg moom ngeen gën a sentir en fait ngeen orienté seen bopp foofu di def ay recherche ci Google internet bi moo ngi fi Twitter rek nekku fee Facebook par exemple TikTok bi di des fois am xam-xam tuuti xam-xam mais day jël sa temps en fait jël leen profito connexion jënd aussi jàng dara au moins essayer di essayer des fois parents yi dañuy dañuy bloquer seen xale yi suñu commencé def dara ñu parents aussi essayer leen encadrer seen doom yi xam lu a xam lu bëgg si wan bi loolu boobu conseil rek laa laa leen jox te bu leen naan ay métier mm-hmm. scientifique ak littéraire yëpp de toute façon soo jàngee mm-hmm. am métier soo jàngul nag doo am dara donc jàng rek jàng rek mooy fay waaw moo am solo quoi xam-xam jàng ma bañ a sori rek voilà nekk leen si daal macha allah c'est c'est cool c'est cool c'est parfait je pense que message bi jàll na ñëpp dégg nañ ko et dinañ ci bàyyi xel je pense bu baax a baax a baax Anta lan moo nekk sa mot de la fin

parce qu'à la base amuñu woon dara lo extraordinaire lo xamné ni motax ñu donc motivation la courage négation ak am ben vision et que aussi suñu commencé rek dès le début nous xam lu ñu bëgg focaliser ci lu ñu pour mën ci dem ñi ñëpp wax nañ au début donc l'idée c'était pas d'être scientifique après ma jël cette série scientifique c'était pas d'être informaticien, mais plutôt prof de mathématiques donc à la fin ma ñëw fii xëy na yàlla ma ma suturaal ba nga xam ne nii li ma bëggoon ak fii ma indi defuma ci aw ma ci regret mais parfois nit dina toog du am lu mu def ba ñu yóbbu ko foo xam ne peut-être doonu li gën ci moom mais ñàkk choix moo waral je me rappelle touti 2000 2008 bo ma ngi def 4e Moussa Niass dafa jox suñu buntu kër toog mu ne ma ma fi soo màggee loo bëgg a doon xaw ma lu may door ma ko ministre de la femme parce que boy 2007 su mm-hmm. ay dem Mbodj était ministre de la femme comme man dama bëgg jigéen ñi de trop mané mm-hmm. non ministre de la pour man genre métier la ci njàng mu ne ma non loolu du métier mm-hmm. c'est une nomination di togn né ñaanal suma ma président je te nomme ça mais lo bëgg a doon concrètement mané ko médecin parce que aussi comme sama aide ron doon liggéey ci hôpitaux yeeg yooyu non mom aussi amna lu mu doon gis ci mom ba bëgg ko mais amone ben idée bu clair bo xamni li ni ni ni nii war naa ko mën def man ba bi may ñew ñu may orienter MP non c'était pas MP parce que dem naa pharmacie ma duma dem après ñu indi ma MP et tout ça donc c'était un peu compliqué yooyu noonu donc li may wax mooy nañu am vision nañu xam lan la ñu bëgg nañu jël suñu destin ñu teg ko ci kanam xam ne lii la parents yi aussi jàppale ñu ci ñi nga xam ne aussi ay modèle leen jiituñu ci affaire yi aussi comme affaire mentorat yeeg yooyu jàppale ñu ci rek ci génn. Mm. encore une fois yéen aussi lii ngeen di wàcc à la base jaago am nga benn rôle boo ci mën a jouer wàccal mm-hmm. à la base demal ci village yi demal ci àll bi. Mm-hmm. wax ak jeune jeunes jël leen sax suñu boo nga invité mm-hmm. leen ñu wax déglu wax leen ñoom mm-hmm. lan lañ bëgg doon bu fekkee am na ay obstacle ñun ñu ngi fii vous pouvez nous inviter ñu ñëw mm-hmm. xam nga coacher leen ba lépp loo xam ne rek bëgg nañ a papa ak domaine ko dinañ ko def en tout baax a baax a baax mm, macha li nga wax am na solo trop te di leen ci bàyyi xel incha allah ñu ngi ci ay liggéeyu am solo yoo xamante ni euh, je pense que bu sottee ñun li ñu gën a soxla mooy xale yi ndaw yi tu vois Euh, comme maa wax léegi sax fi ma tok sax la sama xel daj émission bo xamanteni ça sera uniquement pour les enfants mais euh, am na contenu euh, yo xamanteni pour xalé la ñu ci préparer ñu ci ciy liggéey pour jéem xol xool euh, naka lañ mëna def ba information bi di yegg ci ñom aussi quoi tu vois mais yalla baax inshallah alors Franceline yow aussi la mo nekk sa mot de la fin. euh, Diago man je me dis que tey duñu duñu wax finaliser sans pour autant parler des chiffres en fait parce que mhm. euh, d'après ma recherche de documents yu ma dit date de 2016 dois euh, mhm. ci domaine recherche il y a que 25 tu domaine de recherche 25 euh, mhm. de femmes qui sont dans les dans les dans les numériques quoi dans le numérique. ok hmm, il faut que nous le commencé à évoluer parce que de 2010 en 2011 34 des femmes. Euh, sont dans les, dans, dans les domaines scientifiques de 2010 à 2014 de 39,76% en 2017 donc comment c'est yéeg mais donc il faut que nous nous nous gën ramener la femme est la matrice de toute vie l'univers sans la femme mhm. Mhm. de vie en fait c'est le moteur de tout développement la femme est, bien, tout va bien. en fait. donc. <laughs> Ah oui ça c'est euh, le processus de la vie. processus, le mm-hmm. la. donc est la mm-hmm. première éducatrice donc nous mm-hmm. éducation rééduquer orienter parce que lolo manque nous ñu pour clôturer comme li nga wax tout est possible pour celles qui veulent oser rêver et entreprendre ne jamais abandonner ñun jigéen ci kaw ci kanam rek. machallah allah ça c'est sûr. ci xamantene ñi nga xamante bëgg nañu euh, euh, rejoindre FESTIC. site bangi fi site mhm. internet baa ngi fi. dinañ leen mhm. aider dinañ leen mentorer bu ñu am luñu bëgg. Mhm alors alors bépp information boo xamante ni yéen ñëpp bëgg ngeen aussi auditeurs yi xam ko découvrir ko ay site internet wala ay lien ak tout ça envoyé leen ma ko par mail comme ça ma dama koy def ci description podcast bi képp kuy déglu podcast bi wala bu xoolee description bi dangay gis lien yëpp nga xam ne dañ mën a dugg aussi xam li ngeen di def et tout ça pour am mun a am beaucoup plus d'information même bu fekkee am ay contact ay numéro téléphone yoo leen bëgg joxe aussi envoyé leen ma ko rek man ma def ko ci description podcast bi comme ça information bi ça va passer. d'accord ça marche ça marche. ok allez Fatoumata lan mot de la fin. merci merci pour Allô, oui. Mm-hmm. Euh, oui euh, mm-hmm. je remercie tout le monde. merci pour invitation que digen nek euh, fin, nek obstacle. Nous comme mënuñu nekk euh, si benn entreprise tay jii benn manager ne damay jël jigéen parce que am naa fi góor naa jël jigéen pour respecter parité et tout ça ñun tamit suñu bopp bu méttee sax ñu tëdd bu ñu toogee bu tawee sax ñu ne poto poto yi mm-hmm. bu ñu ëmbee ñu naan dañoo sonn mm-hmm. sonn sonn ne ñu jéem a motiver góor ñi ñu jël ñu ne ñu jéem a motiver euh, chef d'entreprise yi ñu teg ñu jox ay poste de responsabilité car bu fekkee da lay gis tout le temps boo feebaree wala nga am gant sax nga ne tey sama biir day metti mënuma liggéey moom du sawar pour confier la ay tâches de responsable nañu nañu nañuy formé wu di acquérir ay nouvelles connaissances de base voilà mm-hmm. nañu bañ a ragal di échouer parce que à force ngay échouer si benn affaire nga gëm ko si nous ngay jàngee tey jii boo hmm. échoué la première fois bi ma defee ba xam naa ne daanu naa si matière scientifique deuxième fois dama dem jàngi SVT troisième hmm. fois PC laa daanu ma dem jàngi di hmm. PC boole SVT ba quatrième fois si la réussir nekk si premier du centre yi kon nous gëm li ñu bëgg ñu jox ko parce que la persévérance est le coup de la réussite te ñun femme si on commence à nous plaindre tout le temps tout le temps dañuy neexal nit ñi dërëm bi ñu am nañ si yem facebook bi ñu am nañ ko jéem a jaayee am nañ compte facebook am nañ connexion sans franc nañ fa jaayee suñu njambaan Dakar yi nañ ko jaayee njambaan bi ba njambaan bi tey jii jural ñu ay poto mag pourtant exemple sama yaay laay jël temps ba ma nekkee xale dama ko di yóbbaale mbuusu soo crème bi le temps que muy dugg soo crème bi lay jaayaale bu jaayee loolu ba pare bu ñëwee le temps que muy sóor bu baaralee ba pare jël na glace yóbbu ko ci fuur yi nekk ci koñ ba ñooñ jënd ko ngoon bi le temps que bu ñu sieste ba yeewu soow bi way na ba ñu jël ko defar ay caakiri teg ko ci boutique beeg bab yi si koñ bi rien que pour te dire nit ki li nga gëm si ngay évoluer waaw doo gis nit tey jii nga ne je veux être comme cette femme là alors que xamoo jaar jaaru femme boobu àdduna xëyu sotti nit ku nekk dafa am jaar jaar te ku nekk ak sa destin ne pas accepter de se comparer aux autres nañ jël différence bi ñu am si mhm. ñeneen ñi ñu ajouter ko si ñun nous mhm. ñu ajouter ko si ñun plus les doon ñu aller de l'avant mhm. croyons en nous et nous femmes on peut y arriver on peut le faire vive les femmes sénégalaises et franchement ci kaw et je pense que tey liñ fi wax yëpp gars yi dinañ ko déglu ko et dina jur benn ngëneel boo xamante ni kenn ku ci nekk di nga a euh, euh, xaw ma autocritique lay wax xaw ma je sais pas mais di nga gën a interroger waat sa bopp ci yu gën a bëri ci yu bëri pour mën a jóg fippu ak sa bopp du fippu ak kenn nag ah fippu ak sa bopp la parce que li ñuy téye le plus souvent suñ bopp la tu vois ci ñun la nekk mais ñu fexe dagg lien yooyu ba nga xamante ni dañuy am freedom mun a génn mun a wax mun a exprimer wu surtout exprimer wu parce que cooy sooy exprimer wu ci ngay xam say say say say say say say kii say say ci ngay xam li nga mën ak li nga sooy def di jéem aussi ci ngay xam euh, li nga xamante ni mooy say capacité ak yi nga war a euh, renforcer waat bu baax a baax donc il faut toujours essayer comme li ko kenn waxee léegi nii rek échec amul échec ça n'existe pas expérience boo xamante ni nii ça n'a ça ne s'est pas passé comme ni nga ko bëggee woon rek la quoi mais du échec te da nga ciy jàng loo xamante ni lu bees lay doon ba bu subaa boo rencontré même problème bu demee noonu di nga xam na ko naka nga koy surmonter. alors kon nañ góorgóorlu bu baax muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw Sénégal toll na foo xamante ni dafa nekk ci pente boo xamante ni dafa war a jóg dem tu vois bu demul rek day daan donc nag na si ñëpp jàpp comme ça mu dem ça c'est sûr man loolu lay wax à chaque fois 2022 2023 24 yi nii dafa war a yéeg quoi bu yéegul rek nag day daan waaw loolu na ko ñëpp xam waaw. non challenge la dinañ dinañ def tout ba ba réussir challenge bi. non mais tey man yéen laa gis ci kanam ah yéen laa gis ci kanam waaw xam naa nag dina am ñu ma clash après mais man yéen laa gis ci kanam voilà. waaw démb rek maa ngi waxtaan sama benn xarit mu naan man man je lui ai posé la question à savoir ma ne ko mais ban président moo war a nekk Sénégal mu ne man mu ne ma man de femme laa wax man président daal femme la waroon a doog ma ne ko voilà <laughs> pourquoi pas effectivement jigéen bi jiite woon rek Sénégal changé. ah wa loolu la wax de mais nak débat bi moom du ci si dugg moom mais euh, bàyyi mo bàyyi ko foofu rek. am man jigéen jigéen buy politique fi ci groupe bi xëy na man lay doon après na leen ah jox leen ci ministère yi ngeen gérer dëkk bi doxal. xam nga neewoon na leen day politique xam nga fu mu toll nii wane wane na boppam neewoon naa leen day politique. ah ci baxna allez franchement kontaan naa ci trop franchement kontaan naa trop maa ngi jéggalu nag bu baax a baax euh, jël naa seen temps yëpp tey euh, mais je pense que c'est pour la bonne cause parce que tey waxtaan nañ lu bëri et yaakaar naa ne émission bi dama koy def en deux parties première partie bi ma génnee ko deuxième partie bi ma voilà ma def ko deux parties quoi tu vois parce que gudd na trop te xam nga gars yi bu ñu déglu des fois dañuy sonné tout ça donc dama koy def deux parties voilà mu nek premier ak deuxième nga xamanteni ñepp di mëna am temps déglu ko voilà bu la nexé boy dawal sa oto déglu ko bu lu la boo bu lu yeggal yi ainsi de suite mu gëna a commode quoi d'accord mais ma ngi leen remercier bu baax di remercier auditeurs yépp di leen wax ne euh, incha allah dinañ am yeneen programme yu bëri yu bees yo xamanteni ñu koy wajjal comme lu ci melni juroomi simili parce que gis nañ ne épisode yi des fois day gudd mais dañ def ben format bo xamanteni 5 simili la tuddu nga xamanteni dañ leen jox ben information rapidement ci xarala yu bees yi tu vois ngeen xam dañ ci mëna a déglu rapidement dem seen yoon tu vois boy def sport wala ngay nekk sa oto di dawal wala nga nekk ci transport yi dem euh, dem jàngi wala ngay liggéey wala nga nekk ci kër gi di di togg añ bi wala lu mu munti doon rek mun nañ am benn moment de cinq minutes bu la joxee benn xam-xam bu bees ci xarala yu bees donc loolu ñu ngi ciy liggéey mais ñu ngi remercier bu baax a baax di leen jox dig daje incha allah euh, semaine prochaine ci beneen épisode bu bees ci podcast bu rafet allez merci beaucoup ciao et la prochaine Merci beaucoup. Merci, à toi également, Diago, pour merci. merci à toutes les belles dames euh, présentes. Ok, allez, bon, week-end. ciao, ciao. Bon week-end à vous. Merci, ciao. Merci, ciao.